Rasulullah ne ko ban borom. Mhm. mu ne ko la ahla mooy bi tiim lépp te dara tiimu ko. subhaana rabbiyal ahla mu nekk nekk ci suufu toom nekkul ci suufu kenn. Mhm. subhaana rabbiyal mhm. xam ne ci julli julli ga. saa yooyu jàppee say woom. wala nga wala nga dëpp ko. loolu ngay wax noonu. ba su jootee. waa kay subhaana rabbiyal ahla. bàkk naa sabbal naa. tudd naa seetlu yàlla bi nga xam ni. bi ma bi ma sujjutee nekk ci suuf al axlaa moo nekk ci sama kaw. lu mën a xew saxal ci di ko sabbaal. Mhm. sabbi saxal ci sabbaal. Mhm. looy sabbaale isma ji dafa dolli ko de. Mhm. isma rabbika sa turu borom. al axlaa bi nga xam ne mooy aji kawe. salatan ni ko ah. mu ne ma lu mën a xew rek ma jóg ci loolu mën ko jóg mukk. mu yëngal bopp ba teg ci dënd ba. jëmee kaw. poussé poussé ci sooy jibril ni ko kon lu yaatal waxtaan wi waaw suñu borom boobu mooy kan alisi mooy buur bi nga xam ni xalaxa loo xam ni am na bakken di noyyi moo xam nit la moo xam jinne la moo xam malaaka la moo xam bàyyima la moo xam garab la moo xam xeer yi la moo xam environnement bi moo xam asamaan la moo xam suuf la lu mu mën a doon xalaxa buur bi ko bind ba noppi fa sawa mu yemale kon na mu bëgg mu mel na mu mel noonu fi ni nit mel moom képp ni mën a mel. boobu kaw tànk yi féete suuf. ku dul nit mënu ko fi ni nii melokaanam moom képp ni mën a mel. fi ne ba fi ne garab yeeg nit ñi semmi ni taxaw benn palaas fa sawa moom képp ni mën a mel. rasul mu ne mu ko sa borom mooy ku ne ku maanaam barab bu ne moo ko bind. la war a ne mu yemale ko ba mu yem ca loola melal ko couleur ba melal ko image ba melal ko yëfe fa sawa ne ko yow nii laa bëgg nga mel mi xaaral ndigal hmm? yonent bi yëngal boppam ni ko loolu d'accord naa ci yow waaw moom mooy kan ak nga ni ba tey wala si mooy buur bi nga xam ni xadara loo seen muy dox mooma loo seen mu taxaw mooma ku juddu ñëw jamono mooma waaye ko fi faatoo mooma xadara loo gis ci kaw suuf moo ko doxal kenn mënta def mbaa nga dindi ku dul yàlla su yàlla defee kenn mënta dindi su yàlla dindee kenn mënta def bu defee ba noppi day ubbi si ñëpp neen ànd leen ci hmm? xadara mooy dogal su dogalee ba noppi fa xadaa mu orienté acca jóg leen dem ngeen ngeen jëm kenn sañu koo bañ ñu ne ku xëy ku ne bu dee daa bëgg nga tëdd da nga def da nga def ñu nekk hôpital nee ni laaj seen bopp gaa yi kenn bëgg ci loolu de nii gaa yi mel hôpital kenn bëgg ko ci waaye mooy xadara moom ba hmm. noppi faada ñun ñi nekk ci ci kër yi da ngaa ne son kattan son son man man man déedéet xadara faxaada la nga gaa yi tëdd ci bàmmeel yi dutuñu wax ba ilaa yow mi yëpp asoon xadara fa hada liir yi nekk ci ndigg yi te juddooguñu xadara fa hada waaye ñi nga xam dañuy judd rek faatu xadara fa hada buur bi war a falu xadara fa hada buur bi war a folleeku ko gëmee woon nii dañuy bàyyi yàlla ak affaire bi waaw yàlla xadara mooy dogal fa hada te mooy orienté mooy digle fi ne du diplôme lu dakk wax nit ñi du mag fi dogal suñu borom la bu yàlla def ni temps yi teg naa fi diw xuli allahuma malikal mulki xam nga xikma bi ma ma jàngi sëñ bi maanaam ba yemoon ci xaddara rek waaye fahada daa moom force la orienté gi waaw waaw waaw waaw balay dogal ba parem ni mu bëgg nga def ko bëgg nga mel ni bëgg nga jëm fi mooy topp sa ginnaaw ni la ayoo obligé la foog nga def li mu bëgg moo tax bu ko namee ci nga bëgg a def neneen ay xeer lay sàppi waaw faxadaa nee na moo maa koy réglé maa koy defal sama bopp wala si xadara faxadaa te jibril ni yonent bi mm-hmm. ndax comprendre nga leçon bi mu yëngal bopp bi ni ko bu wér mm-hmm. waaw mooy kan ba tey mu ni ko ëllësi mm-hmm. buur bi ma wax ne nanga sax ci di ko sàbbaal te bu dara tax nga jóg ci sàbbaal ko axrajal marha axraja mooy génn ci biir suuf si bu tawee ba ndox mi bari gàncax gu na tax googu ngay gis tawet yàllaa koy def fi ne noor bi nii fexeel ba taw yow ku ko man na taw ba pare nga ne nag bu fi ñax am yàlla taw bu noppi nga ne ñax du xew du du du xew du am xam naa nag dinga nga sonn si wutub guppaka ruuj ak na nga dagg ñax waaye loo bay loo bay loo bay mu saxaat axraja mooy génne almarha gàncax gi ci biir suuf mu ne dellu ci kaw ba pare verte fii nag xikma bu rëy ngi fi ndax bëgg ñoo dimbali ñun yàlla axraja mooy génne ci biir suuf si almarha pétrole waaw axraja mooy génne ci suuf si almarha circom axraja muy génn ci biir suuf si almarha or axraja génn ci biir suuf si almarha phosphate axraja muy génn ci biir suuf si xeeti lujum yépp nit di jariñoo borom bee koy def ngir bëgg kenn du ni ko da nga ma fi indi te joxoo ma loo loo ma jox ndax daa war a daje yow ëllëg te moo fi indi te moom xam na ne ku yeew fas jox ko ñàdd moo tax axrajal marha nga ne ko waaw jox nga ma ko de léegi nag mi ngi nii moom ni fi wax dëgg nu muy mujjee ak yow mu ne bu ndoxee ba benn moment soo ko yemalee ca wertu googee ñax mu wert amutu doom nit du jariñu ñam bi ko amut ay reen nit du jariñu suuf su amul or amul circom amul phosphate du jariñu waaw nooy def kon nag mune ne fa ja'alahu an ahwa gis nga ko fa ja'alahu mu la la wertoon xusaan bopp ñax mu wow koŋ ahwa ñun kuku pourquoi ça nay dem lekki seen wal waaw mi ngi bëgg am nu def de ak xari ak fas ak gilemi ak bayyi mbolem bayyi mi nit ñi xaaral ni tuti su jur gi lekkee ba noppi ca mboppam ba seeni kon suur xam nga moom ñax ma mu defaroon mu naat rey na ko ni yow nag yow xar yow ba yow mi déewagut lekkal naka xar ak bëy ñoom seen kër dem lekk suñ lekkee ba suur bu ni nit ñi rey leen nay ñu rey ñi ñoom nit ñi déewagut kon kon jur gi ñooy lekk ñax mi ba ba suur nit ñi rey jur gi lekk leen <laughs> fa jaxaloo mu sot fi mu trans trans transformé gàncax googee ñetti ñee koy bokk maanaam ñax naan na ndox mi di mel ni war a mel ba ba fu màgg a wareem mu arrêté ko ni jur dem leen lekk ñax ma jur gi dem la lekk ñax ma ñax ma jeex ñu suur mu ni nit ñi lekk leen jur gi fa jaxaloo mu transformé ko xosaan boobu képp koo xam ne ci matière yi ma wax nga mujj nek sama morom mujj nag ah waa ñuul boo fekkee nit ci bàmbeelam day ñuul kuku, nak wu de day ñuul kukk ñax go day ñuul kukk fa jaxaloo xusaan ahwa subhanallahi wa bihamdi akhrajal la do waram na ci dugg ci bir waaw fa jaxaloo xusaan ahwa fa jaxaloo xusaan ak bu dewe waaw fi ngay akhrajal marha bi ngay dund lepp nat la fa ahwa bi ñepp lekke pare ku sama ñepp faato no wax ji jeex ñent yi mala ko jibril ne ko nan sensé darsu bi te du ko feneen sa nu ri'uka fala tansa sa nu أقرئك فلا تنسى إلا ما سألنا إنه يعلم الجهل وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى gis nga aay yi génn fi mu doon waxee léegi moo ca école mi ngi feneen fii jibril prof la ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam koy jàngal waaye jibril avant muy ñëw suñu borom professeur la buy jàngal xoolal ma lii. léegi nag sol jël na crayon dem na ca tabla ba. rasulullah jibril yàlla jàngal ko ba noppi. ne ko comme jàngal naa li ma jàngale ji. mu nekk ci yentu alayhi na moo tax ñëpp dañoo war a jàng. Mhm. jàngkat yi ñëw nañu. Mhm. mu ne ko. Mhm. yentu doo ko wax ne ko leçon yi bari na de ndax li ma weesu. dégg gi ma ko dégg daa fees sama bopp bi te doyuluma. lumay def batal ni mo bëgg bëgg wax mu ne ko yalla sa borom bima yoni ci yow neena nga dal mom sa nuqrixuka dana la alphabétisé dana la jàngal abajada jangal la aduna jangal la laaxira Jangal la environnement bi jangal la sawara jangal la ajana jangal la kan muy jangal la dundu jangal la de ak danger yi nekk ci seen biir. jàngal ah, la xaqiiqa ba nga xam ne xaqiiqa ngi ni mu jàngal la sariya wax leen ni ñu leen war a boolee. ak boo leen beree ku nekk da ngay mujj mel. sa nuqri'uka xel set na laa jàngal. mooy intégré te yàlla nee na téeméeri saar yi ak fukk yi di ñëw ak téere yi ko jiitu woon ak 124 000 anbiya yi. ak doomu aadama yi kenn ku ne ma xamal na système am danaa la ko defal falaatan saatu doo ko fàtte da ko wax yonent bi ko ah waaye loolu nag loolu nag moo ko yenoo nag loolu nag loolu nag loolu daa xaw kii mu ne ko nee moom mii jàngalekat bi bu la ko jàngalee am na système bu mu ko defee ceew doo ko fàtte mukk ci kaw suuf moo tax aaya bii xam naa sax dañuy dem ba ba téere bi jeex képp koo xam ne toog nga ci taabal ban lii may wax nag bëgg moom mu yàq may wax waaye téye koy moomay la koy élève bi prof bi ne xoj defar ak karawaatam xaw ko yolomal tiim table fas yéene bind ah bu nee nii ba jàkkaarloo fas ko yéene jàng ko ila masha allah wax ko ñetti yoon def ko sa baaraamu sànq lañ def ko sa nopp te diglu prof bi lu dugg duutu génn as nit sax boo bëggee xamuturam te mu doon gan sëñ turam mu la xaadim kan nga ni xaadim kan xaadim kan xaadim ñetti yoon nga ko tudd nii baat nii tukki foo dajeg moom xam ko xam nga ne yow naa ko saa yi ma la xamee woon saa yi daa mel xaw naa la xàmme ah, du la ci fekk boo koy seen xam ne suñu xaadima nga ne lépp loo bëgg a xam rek yéen ci nekk ca palaas yi yaag ca nangam ca nangam manam du du da intéressé rek jangal lolu ñetti yoon sa nokkuri ko falaatan sa ila masala hmm. yow élève bi nekk sa table ba yow prof bi yow nangam yow nangam of hmm. ko sa baram sax la def ko sa nopp dama fay jaar nak waye lu tax mo a jóg dama kàddu rek bo xamni hmm. da ndax ba ngeen gaaw a alarba ci jibril ni rasulullah leso bi disna te risna waye sa borom ne sa ko na bu ci noppé falaatan sax doo ko fàtte mukk du ko fàtte ah ila masha allah lu dul lu mu bëgg nga fàtte ko dëggal loolu pourquoi ça lu mu bëgg nga fàtte ko boo demee ci alxuraan nga fekk mun la maa nan sax min ayatin aw nun sihaanatin bi xayri minha aw mislaha am na ci téeméeri saar yi ak fukki saar ak ñeent wala 6666 ayat yoo xam ne mi ngi ci biir téere bi yoo xam ne am na ci aay yoo xam ne actuellement aay baa nga ba waaye bi doxatul bépp aay xam ne mu nga ci biir saar ba te at bi doxatul yonent koy fàtte. mel ne la azzani laa yankihu illa waaw yu mel noonu da koy fàtte. booy jàng téere bi da nga koy jàngaale waaye la la nekkoon ci biir nga xam ne moo doon atte ba rasulullah koy fàtte mooy mooy mooy man saala moo la ni. Eh, wala wala in sixnaa la nasxabana billadi awxaynaa ilayka waa kay mhm. wala wala in sixnaa bu ñu soobee mhm. la nasxabana ñu demee bili si la nga xam ne awxaynaa ilayka maanaam waxoon nañ la ko ba nga dégg ko maa bëggul nga continué ko mhm. ma génne ko ngay toog naa waa man dama géntug biig gi man de rëcc na ma man naa am na lu ma yàlla waxoon mënatoo koo xam suñu borom daa bëggul nga expliqué ko jeex na te boo jàngee alxuraan fekk ko ci biir texte ba waaye loi bi moom waa nekkatu fi nga xam ni texte ba fii ne dañ ko xalaat mais doo ko mos a xam su bëggee nag définitivement doo ko mos a xam naan da koy day fuli alxuraan kon alxuraan ëppoon na lii na ñëpp xam ne alxuraan ëppoon na nii mu toll da ci am loo xam si biir da ko dindi bàyyi takk doom amoon na da doo ko fekk ci biir wala man sabax rek takk rak ju amoon na da ko fulli moo tax doo ko fekkati dañ lay wax rek ni euh, lii amoon na fi ceew ñu jëkk la lay wax noonu mm-hmm. yu mel noonu nga xam ne ko da ko dindi ceew mm-hmm. moo tax dina loo aay aay boo xam ne ko fekk ci alxuraan mm-hmm. te bi doxatul xam nga bi wax ni ah, sàngara dafa araam tifaaxat am na aay yu ko jiitu yoo xam jëkkee dafa wax ni bu ngeen dee bëggee jaamu yàlla bu leen màndi kon tereegu ko woon gars yi dem ba ko ni quoi waaw d'accord nañu waaye damay gis ne am na njariñ yenn saa yi ko sa biir di meeting nga jël rek mu ne lu leen mën a jariñ leen door a ko ba tey gars yi da nga xëy xëy ne yooyu effacé naa ko bu mu fi amati ci pénc mi inamal xamru lim ko ñu nem casino nag nañ ko nañ ko bàyyi xel képp koy carte naar bi ngeen ko tudde waaw na ñëpp xam ne loolu ñu naar bi sëriñ bi xam nga ko kon jot gi jee dugg <laughs> as di nga carte carte xaalis ku sa jëkkër di carte xaalis na nga xam sa jëkkër a ngi def lu araam ku ko sa bàyyi def mi ngi def lu araam carte daa araam dégg nga yu mel noonu mu ne ko sa nuqur yu ko falaatan sa lii ma la dicté di nga ko mémoriser mémoriser goo xam ni du ko fàtte lu dul lii ma bëggatul nga xam ko ila ma sha allah dégg jooju wax jure moo tax gor su fotee maanaam fo waxuma fot ci nag maanaam bu defee lu mu wër sa def aay bi da koy def bu mu fàttee ñaaw téef wa xam lu jub mm-hmm. du ko defaat gor suñ la defee loo war a def na ko fàtte dégg nga bul fàtte la la bii mu la na ko fàtte lu tax day tax doo fayu mm-hmm. as ah, ku la defal lu baax bu ko fàtte mukk day tax boo jekkoo fay ko ku la def lu bon fàtte ko day tax boo jekkoo doo fayu mm-hmm. yow boo defal lu defal lu bon yow bu ko fàtte day tax doo ko defaat as boo defee lu baax fàtte ko ñent fàtte laa wax de sanuqri'uka falaa tansaa illaa maa shaa Allah dégg nga ko wax wa waaw jib jibril ne ko yàlla rasulaay ne jibril comprendre naa tey li nekk ci alxuraan te bëggatul ma jox ko dama koy fàtteloo li rasulaay di mat mat mat am na lu mu fàtte ومنهم من خصصنا عليك ومنهم لم نخصص يا استاذ بما يا مبر توب يالا كو خني يالا موني رسول الله امنا لو خني خمالنا لكو كون خمول ليب وايو منهم امنا شي ميرمي اك شي غاي ньо خم لم نخصص واخوما لا ньоي كان كون كولا ني خمنا ليب جومنا خم خم بو لي سان بن بي لا ньор بن بي خاجار كو جوم نيت جوخني بن بي دسنا لو بari كو ديفن خم غليب جومغا moo tax booy kurise kenn la maam alaaj ma la waxoon baal baal ba jeexal téere yëpp Maodo baax te Maodo maandu nisful xilmi laa xadri yonte bi alei salatu ma ko waxoon dëgg mu ni ko jibril ni rasulullah innahu na nga xam ne sa borom boobu la fas yéenee jàngal te dootoo ko fàtte daa xam lu bari de ah mu ne waaw lu daa nga wax ko mu ne ko moom yaxle wax xam na al jaxra lépp lu feeñ bañ ko tegagut fañ ko doon bëgg a yàlla xam na ko kon waaye def nañ ko xam xamoo ne kii digg see wugg di génn sol lu ñuul wala mu kabulewu nii gaa yi def tey bu bëggee jàppi nit digg ak police ak gendarme ak keneen wala sàcc mbaa ndàngam ba fexe kenn du gis say bët lu bët yee kay feeñ ngir bëgg a def aw ñaawteef moom daa jàpp ne yàlla gisu ko ah moom xam nga nit nga mën a nëbbu waaye suñu borom innahu yaxlamu xam na aljaxra lépp lu nekk ci kaw loo ko masque masque yàlla xam na ko rasulullah alayhi salaatu wasalaam mu ni ko ah mu ni ko waaw mu ni ko maa yax faa noonu mu xamee ni nekk ci kaw ñëpp di ko gis li kenn tuddagut waa ji daxañ ko ca biir a biir a biir mu nekk ci biir xolam te jëfagu ko noonu la ko yàlla xamee rasulullah ni ñokki defaraat mbuum ni ko kon kat ko yëpp moytu koo xam ne kat loo dugg xam na ko loo defagul xam na ko loo wax xam na ko loo waxagul xam na ko su fekkee da ngaa naafeq bëgg a defee loola neex nax nga sa bopp moo tax complot yii nga gis ci àdduna bi si ñoom xamuñu laa ilaha illallah billaay yàllaa ngi leen di xaar bëgg a détruire rek sa morom jaam ak bu mën a doon nag ci kaw suuf laa wax yaa xam yonent yàlla alayhi salaatu wasalaam ak gaa yi ko bañoon gaa yu baax yii ak gaa yi leen bañoon wujj wi ci biir kër gi ak wujjam sëriñ bi akub taalibeem ndongo daara bi akub sëriñam xarit bi akub xaritam politicien bi président bi maanaam loo def ci lu bon yàlla xam na ko dana la atte loo def ci lu baax yàlla xam na ko dana la fay innahu yaxlamul jahra wa maa yaxfa sëñ bi lii ku ko xam di nga toog te toog topp sa borom tabaaraka wa taala ndax loo def leer japp ni yalla gisuna kep tax nga ñemee yenn ni waye bu la wóoree ni yalla gis na la di nga moytu di nga xam ne fi ngay tek sa hmm ino yahlamu jaxra ba yafa wax ja jeex dug na benen fas wa yassiruka lil yusra hmm wa yassiruka lil yusra mhm. fadakkir mhm. in Malata